asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla bu baax sant Serigne Touba Mbakke mi tax nu tal ko ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbakke mi yàgg fi lool te ànd ak wér rakkam yi jóg nañu Cheikh yi sëñ Bamba yi jóg nañu lan moo tax ñu jóg laxa ceraay bi jaareen indi ko tuuba mu yëpp def barki démb jumaay sëñ Bamba ji ñuy julli ca Ndakaaru mu yëpp def la ko jiitu jumaay njaareem murit yee ko def jumaay Tuuba murit yee ko def loo fi dégg ci liggéey sëñ Bamba ak la liggéey ba rëy rëy ku dikk fekk ca waa ko sëñ Bamba ko dem balante kenn fekku leen ci ñoo man ci tool yi ñoo man ci liggéey ñoo man ci digal ñoo man ci soxla waaye Tuuba ca kanam ba mu feeñee la yaakaar judd ku dugg ci Tuuba ca kanam dem ca kanam Tuuba ca kanam nag daana def ñu ngi ko fekk si gis ngeen làmp yi gis ngeen mbedd yi gis ngeen hôpital yi gis ngeen dispensaire yi gis ngeen ndox mi fu ne gën na loona ko waaye Touba ca kanam jóg na nag ànd ak njabootu sëñ Bamba làqu ci ginnaaw Cheikh Amadou Mountakha mi xam ku làqu ci ginnaawam sëñ Bamba fat la te ku sëñ Bamba fat doo ko naan biti ñëpp rëg rëgi fu ñu jëm Touba lu ñuy def assainissement bi Touba ca kanam ne ndox mu taare wala nga jaar ci mbedd wëri dootu am jaayante nañu ah tàmbali gi nag bu neexee yàlla samedi lañ koy def ña ngi koy tàmbalee ca arrondissement ba ca yoonu Mbàkke fa la ñuy tàmbalee waaye jaayante bi yëmu fi de ci biir réew mi ak bitim réew gaa ñaa ngi jaayante réew maa ngi walwali nit ñaa ngi ñëw de eh, ñi ñi ngi joxe ñi ngi joxe kii yi peel yi dañ koy an sànni ko sëkk ko dindi buut yi ba fu neex waaye jaar kenn dootu dugg mbedd Tuuba wëri Touba ci kanam ne loolu jeexam du ko ci mbedd ba pare wëri doo nga dem ci jumaa loolu lay bañ a gis moo tax Touba ca kanam jóg an ak Cheikh Mouhamadul Mountakha baax yi ak rakkam yu baax yi rakkam yu baax yi nag ñëpp jëf nañu jëf nañu wax nañu soññ nañu segam da ca walla ndoo waa daaru ca teet ba nag ma ci pind ba lii nag njabootu sëñ Bamba ngay jëkk a def cheikh yi jóg ku yàlla jënd teraanga te nga yaakaar sëñ Bamba loo koy doyee sëñ Bamba soxla na bisam baa ngi jub si jóg leen na set wit waaye daal ah xam naa ni saa waaja fa mu tëdd tey bàyyi na xelam ci Touba kooku mooy kan mooy jàmbari sëñ Bamba ji ku wax Touba nga ko tudd de Cheikh kenn du ko fàtte waaye daal Abdoulaye Sylla mi nga xam ni yëngu bu mu yëngu sëñ Bamba tax Abdoulaye Touba dikk fekk la ci ku dem bàyyi na ci ah Abdoulaye Dia sëni ko jàmbaari sëñ Bamba yi lii ma li ma war a lim nag dafa xajul ci télé xajul ci rajo xajul ci appel ah soxna moom i kene Abdoulaye Tage ah tabaarkalla ah ki nga xam ne mooy Moustapha Fall ami biti ak njabootu yoon bi ana Bamba Ndiaye Thielga jóg leen da maa ngi lim fii waaye danaa lim feneen lu waay indi ñu defal ko sëriñ Tuubaa dafa waxoon sëñ Masamba Diop Samb Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko Damsaan laa boo xam ne bii ku ci def sëñ diw danaa la ko téel ba diw jafee ma jox la dam saanu sëñ bamba gi dafa jóg ñëw leen ñu def ci dam saan bi liggéeyal sëñ bamba ak Cheikh Mamadou Mountakha bu kenn manqué lu waaye am na ko ci def